gis nga sànq euh, image yi ñu doon jël ndox yi ñi ngi fofu mbedd yépp ñi ngi commencé ta bon de ce fait que hôpital bi mi ngi toll ni te suñu mag ñi ak suñu yaay ak suñu jigen ñi tamit sonu nan fi ku fi fièvre dañ lay évacuer yóbbu la ay Mbargane wala centre de santé bi nekk à te vraiment c'est de la désordre jaxay fi li fi xew kenn mënu ko wax ñuy indexé directement le président monsieur Macky Sall di ko wax ni il fallait que mu ñew xol jaxay désordre bi fi am c'est la désarroi ndax jaxaay euh, banditisme bi à cause de quoi à cause des éclairages publics jaxaay fi euh, euh, comment dire so soo pour nga faju problème la Ben centre de santé bu ndaw mo fi nek ñaari kër yu lan takalé def ko centre de santé hôpital baa ngi ñu depuis 2014 pareil. bon ñun def nañ ay en tant que ñun ay ndaw yi nek ci ci gox bi tok nañ ci ak yenn kilifa mais à ce point ba léegi amaguñu benn réponse bu favorable ndax it moo ak restant kër yi nga xamante ni seen i borom waroon nañ ko jot ñun moom lañ doon doxandoo ensemble mais amaguñu benn réponse bu favorable ndax mbir yi tamit dafa nekkoon ci ay loxoy kilifa muy le gouverneur Fall bi fi nekkoon euh, à à Dakar bon ba nu jëlee ko fi ak gouverneur bi fi nekk ak actuel muy Alassane Sall bon comme nag euh, jaxaay à ce point ne dugg na ci euh, nouveau département am son sous-préfet ñun dañuy dañuy dañuy lancé euh, le sous-préfet de Jaxaay ñu taxaw ci mbiru Jaxaay surtout ci hôpital bi parce que tamit sonu nan vraiment les jeunes de Jaxaay les femmes euh, sonu nan encore une fois gis nga bi nga jëlé légui image yi gis nga ay poftan ñofi nek ay gar ay jaan fi fiy génn et cetera fii yëpp yi du tak lamp yi fayna désordre bi fi am kenn mënu ko wax quoi franchement bon man ki fi nekk euh, il n'a rien foutre ici man loolu lay wax defu fi dara defu fi dara monsieur le maire Mor Sarr Ba deful fii dara à Jaxaay te te Jaxaay ñoom ñoo ko fal à 31 conseil kon donc moom def fi dara lim mu diggante woon ak waa Jaxaay wor nañu te nag euh, euh, dina xam ne les jeunes de Jaxaay marque dañuy fas taxaw pour marquer seen époque te dootuñu bàyyi sunu Jaxaay gi kenn kenn. ku ngay ñëw di fi di fi salfaañe wala mun ko mun koy yàqal su paree dem tëddi këram def fi dara euh, tout récemment bi nu wootee nettoyage ci district ci hôpital bi fii nii bi mu ñëwee ndox yi mu doon naan mbuus yi sax fii la ko mujj sànni kon kooku di woote nettoyage ba pare naan ndox sànni ko fii ba pare dem yoonam sareet yi doon évacuer mbalit yi pour ñu fay leen problème la la c'est du désordre te loolu vraiment dañ koy déplorer di ko wax nag kenn duñ ko wax kenn ku dul le président monsieur Macky Sall moom la ñuy lancé appel mu ñëw jàppale ñu avec ak ak le ministre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ñoom la ñuy woo ñu ñëw taxaw suñu jaxaay bi te xam ni ay bàyyi ma nekkuñu fi ay sénégalais ay nit ñoo fi nekk. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di ziare li président wax rek laay dëggal man maa ngi tudd Roqay Mbow jaxaay nag yàgg nañ fi moom bi ma bi 2005 ba léegi ñu ngi fi waaye dara doxu fi dara doxu fi ku feebar ñun jigéen ñi dañoo sonn. ndax bu ñu feebaree suñu doom yi feebar ñun ñooy jug oto boo laal buñ la waxul dix mille quinze mille lañ lay wax wala duñ la jàllale te ñun amuñu loolu fi mu toll nii ku feebar fi mu toll nii guddi boo ñëwee ci clinique bi boo génnewul xaas bu weex taal doo fay te ñun amuñu doole ñun li ñu indi jaxaay rek taa suñu kër yaa ngi fees del ak ndox waxuma laak nag di fay ay clinique ñun amuñu loolu nañu dimbale ci suñu hôpital bii ñoom ñi ngi yor seen xaalis di di sànni rek ñoom xumbal la ñuy dem tànn biir ñu maye fa xaalis waaye lii moom dañ ko waroon a lijjanti ndax sante moom ci nit la bokk santé dafa baax ci nit waaye xumbal ak tànn biir loolu moom taxul ñuy ñuy fal maire nañ ñu dimbale si suñu jaxaay bi defaral ñu ko xale yi nag jug nañ de jug nañ te kenn du leen téye incha allah rabbi. Eh, sang bi waa Kër Massar Impôts mu ngi leen di nii di leen sargal di leen dalal di leen dalal seen waaye yal na yàlla yokk seen weer may leen fan wu gudd waa ànd ak teraanga sax dàkk àddina ak àllaaxira eh, léegi nag eh, li tax eh, ma jóg ko ànd ak Percy mooy manquement yi jaxaay yu nekk jaxaay ndax fi mu nekk nii may wax ak yow booy dem sax pour fi ngay jaar ci problème mu éclairage problème lay doon ndax benn lamp tàkkatu fi yooyu yëpp mu ngi nekk ci responsabilité bi maire mais maire jéemul dara ci suñu dëkk bi boo demee côté unité 21 ay kër nga fa yoo xam ni eh, kenn xamul nu mu mel foofu la bandi yi nekk eh, mu manque sécurité boo xam ni bi eh, tout dernièrement lañ fa rey benn xale déegi bari na trop finalement alors euh, te amuloo benn moyen da ngay sonn parce que da ngay jéem a wut ay taxi te fii ay góorgóorlu rek a fi nekk ndax ay góorgóorlu moo taxoon jëlee leen su ko defee loolu daal Eh, moom laa amoon loo xam ne lii bëgg naa kaa wax ñu dimbaliñ ci lëndëm geek hôpital beek eh, agrément agré agré bi ñuy def ndax eh, ñàkk sécurité bi vraiment alors ak suñu police bi fi nekk aussi dafa manqué personnel ba finalement li nga xam ni moom la ñu war a def maanaam pour askan bi mu manqué loolu daal laa amoon lu may wax wasalaam jërëjëf